أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميغي أغيين ci suratul baqara ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñu ngi jël aaya 38 ak aaya 39 mu nekk ñaari aaya yu ñu borom bi tabaraka wa taala di jàngal ñetti mbir bi ci njëkk mooy almaasiyatu tusabibu saqo wal hirmaan mooy bàkkaar li muy sabab ci xeet li muy sabab ci ay doomu aadama ci mbindeef ci gox ci dëkk ci place li muy sabab mooy dañuy texee di bépp xeet bépp réew bépp dëkk bépp nit ñépp ñoo xam ne ay defkati bàkkaar lañ dañuy texee di waaye wala xirmaan lépp lu ñu am danañ ko ñàkk kon bàkkaar baaxul ndax gis ngeen aadama alayhi salaam ak hawa soxnaam ñu ngi woon biir aljanna doon xéewlu di yaataa yimbe di lekk di naan di dund nu mu leen neexee waaye lan moo leen xañ loolu mooy bàkkaar gis ngeen iblis mu ngi woon doon naaw ci pey yu sell yi di ànd ak malaayika yi dem sax bët ñuy naataat la ne moom ci malaaka yi la bokk ndax sell gu mu selloon baax gi mu baax lan moo ko yàqal mooy bàkkaar kon bàkkaar baaxul ñaareel li ñuy jële ci ñaari aaya yi mooy al amalu bi kitaabillahi wa sunnati rasulihi yusabibu l amn wal isaad war nañu jële ci aaya yi ne jëfe téere yàlla jëfe sunna yonent sallallahu alayhi wa sallam moom tamit day indi sabab lu muy sabab mooy day tax ñu am sécurité ñaareel mooy day tax ñu texe jëfi ci téere yàlla moom mooy tax doomu aadama yi am sécurité ci kaw suuf waaye mooy tax doomu aadama yi texe àllaaxira gis ngeen réew yi ñuy àttewoo téere yàlla ak sunna yonent jàmm rek moo fa nekk comme suñu réew yi doo fa dégg ay agression doo fa dégg sàcc doo fa dégg rey nit accident wu oto sax rarement nga koy gis wala di ko dégg mais réew yi nga xam ne du ñu jëfe téere yàlla du ñu jëfe sunna yonent bés bu nekk ngeen dégg ay nit yu ñu rey ci mbedd yi bés bu dégg nga dégg ñu ne rey nañ fee nit bés bu dégg bés bu nekk nga dégg ñu ne daggate nañ nit bés bu dégg nga dégg ñu ne nangam ak nangam wax ju bon lu tax ci jëfe téere yàlla ak sunna yonent ci la sécurité da amee yàlla wax nañ ci alquran wala kum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laallakum ku rey nit nañ ko rey suñ ko defee rek yàlla nee na jàmm am da ngeen di dund ku rey nit nañ ko rey rek sécurité day am parce que kenn dootul wax ne man damay def lu ma neex xoolal fii léegi da ngay wax ak kenn rek mu toj butel booy bi dama koy kil damay naan laay fam bàyyi leen mag waay yow gis nga toj butel jël paak da ngay wax ak nit mu daw këram jël jaas yi ñëw lu war a lool parce que xam na après du mujj fenn daf lay rey ñu tëj ko trois jours jëlal ko avocat mu génn nekk ci mbedd yi di tambaambalu di génne sol bodem di génne dënd di génne dënn amaana sax mu jaar fa mu reye woon waa ji di génne dënnam naan ni ñu naan ko ke pourtant ke moo reyoon gaayan bi de loolu moom moom mooy mooy mooy sunu réew quoi mooy sunu réew yi lu ko waral mooy ñàkk a def dëgg gi yàlla wax parce que yàlla moom ay atteem ñépp ci yem amul avocat moo tax ci lislaam kaso amu ci islaam amul kaso parce que kaso dafay yokk état bi budget boo xam ne bokku ci soo xoolee tey état yi nga xam ne ay kaso da kaso ñaata kaso ñoo am ci Sénégal à peu près ñaata kaso ñoo am Sénégal kar non non yu yu mag yi laa bëgg a wax.
yu mag yi non kaso laa wax ci boppam ah kaso kaso.
ñaata kaso ñoo am ci Sénégal bëri na de.
ah kenn mënu ko lim de xoola kaso yooyu yëpp dañ ko tabax xaalis la kaso yooyu yëpp biñ ko tabaxee ba pare dañ ci def ay matériel xaalis la dañu jël ay nit dugal fa nit ñooñu dañ leen former nit ñooñu dañ leen di utal budget nit ñooñu dañ leen di fay nit ñooñu dañ leen a utal tenue yooyu yëpp xaalis la ba pare nag jël bandi yi dugal fa di leen jox ñuy lekk ñuy naan ñuy fay fayu courant fayu ñu ndox jënd ñu ceeb jënd ñu diwlin jënd ñu mburu jënd ñu meew te ay bandi lañ te seen courant courant du coupé parce que foofu crime la kenn du fa coupé courant parce que dañuy ragal ñu daw gis nga bu fekkee ci lislaam nag xam nga lu tax kaso du am mooy soo defee dara rek li nga def dañ la koy def nga ñibbi dañ laa rey dañ la yóbbu fa la dóor la bal wala ñu jël jaasi dagg sa baat dangaa jam ñu jam la dangaa dagg nopp ñu dagg sa nopp amul nekk fi naan dafa dagg nopp ñu nañ ko yóbbu kaso tëj ko 6 jours mu génn daggaat looy dégg fii léegi-léegi ñu ne bandi yi bu ñuy génn lu ñuy wax teel leen ma sama place booy ku ma fekk sama place dama koy kii wala kuy génn kaso naan téye leen ma sama place maa ngi ñëw loolu loolu ban crime moo ko gën a garaaw bu fekkoon ne dafa dafa jam nit ñu seet fi mu jam ñu jam ko lu toll noonu est-ce que dina jamaat du jamaat bu fekkoon dafa sàcc ñu dagg loxo bi est-ce que dina sàccaat du sàccaat bu fekkoon ne dafa rey ñu rey ko dootu ko defaat moo tax jëfe téere yàlla ak sunna yonent ci la am na nekk wal isaad ak texe ci ñàkk koo jëfe mooy du mooyu ko al iraadu anha du mooyu ko yusabibu alxawf walxusn walshaqa walxirmaan ci ñàkk jëfe téere yàlla mbokk yi xam ngeen lu muy sabab mooy alxawf ragal gis nga insécurité xoolal tey su courant coupé da nga dégg ah xaaral ma daw ñibbi wallaay bëri na tey koo xam ne boo ko ne lu tax du julli ji fajar wuu gaañ fii wóorul ñu fajar fii léegi ñu rey ma ñu bëri ci doomu aadama yi duñ génn guddi lu tax parce que seen bopp la ñuy ragal même da ngay gis sax ndaw soo xam ne dafa dem ngénte wala dem ceet dem la mu guddi rek nga gis mu commencé di tekki lan la ah fii wóorul commencé même sax portable da ngay gis koo xam di yëg ci oto fay portable am denc parce que parce que bëgg a dugg ci oto bi ñu woo la gis ngeen gis ngeen ni insécurité amee mooy xawf ragal kenn dootul wóolu kenn mooy tiitaange kan moo ñeme tey ci ñun fanaan ci biti wala nga fanaan tëjoo sa fenêtre tëjoo sa buntu ne kan kan ci ñun moo ñeme dox ci mbedd yi nii ay 10 heures courant coupé ngay wuy téléphone wala nga yor benn sac diplomate di dox ak moom kan moo ko ñeme ci ñun même da ngay dégg ñu ne sa saak bi amul dara mais dinañ la rey de sa saak bi gars yi dañ lay rey ba pare duñ ci fekk dara kon jarul ngay yor saak kon gis ngeen ñàkk jëfe téere yàlla li muy dugal ci nit ñi mooy tiitaange waaye was soko ak texeet yi texeet yi mooy li ñu nekkee nii tey texeet yi nga xam ne lépp a lépp a yàqu lépp a bon waaye lan lay dugal ci nit ñi mooy husn mooy njàqare kanam yëkk kanam yépp a ñëkk yaram yépp a sonn poos yépp a vide cin yépp a ngeer xol yépp a tàng xel yi benn dalatul mooy husn waaw koo nuyu ñaari yoon ñett këram ñeenteel bi nga gis mu ñëkkal kanam lu tax parce que ñàkk topp yàlla ci topp yàlla ci la ñuy amee amn ci la ñuy amee raxa ci la ñuy amee saada walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw yàlla yàlla di def mu ne la fatahna alayhim barakatin min assama nit ñi bu ñu gëmoon yàlla rek yàlla nee na ma ubbi xéewali asamaan mu wàcc su xéewali wàccee xam nga lan mooy am mooy ar raxa yëfi day nëtëx su yëf yi nëtëxee ñëpp jot ci après lan lay jur mooy al amn i kilo ali yooyu il faut après ma jël la hors antenne yow mbokk yi ñetteel bi mooy al kufru wa takzib li ñuy jànge ci ñaari aaya yi mooy weddi yàlla ak fenloo aaya yàlla yi képp ku weddi yàlla képp ku fenloo aaya yi lan mooy nekk sa fay mooy alxuludu fi naar saxar safara ngay sax ñun yàlla naan xaalidina fiha abadan ku weddi yàlla weddi téere yàlla weddi yonenti yàlla safara nga jëm ak koo mën a doon nag xam nga ñun bokk na fii ci lu ñu nax da ngay gis ku weddi yàlla jahran mais ay nit di sikki sàkk ci moom ah kii pourtant mun na dugg àjjana de nga dégg ñu ne pourtant mun na dugg àjjana de non ah non c'est que yéen yéen li ngeen di juger rek li ngeen di juger mooy ci biti yàlla xam li ci biir Ibrahima baayam weddi yàlla yàlla mu ne bàyyi Ibrahima mi ngi safara nuux doomam weddi yàlla yàlla mu ne doomu nuux mi ngi safara luut jabaram weddi yàlla yàlla mu ne jabaru luut mi ngi safara yonent yàlla muhammad bàyyi taxam weddi yàlla yàlla mu ne mi ngi safara ñun ay nit weddi yàlla fii ñu naan non c'est que ah ñoom ñoom attention de xam leen lu ngeen wax de maandu leen de téye leen seet ah ah ah ah ku weddi yàlla safara nga jëm jëru ngeen koy ngeen di laq-laqal ku weddi yàlla safara nga jëm yàlla moo ko wax wa man yaasi llaha wa rasulahu lu mu ci rek fa inna lahu naara jahannam wala loolu yàlla wax ko ah loolu jeex na wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika yemul ci de mu ne hum fiha waaw da ngeen di sikki sàkk ci ku weddi yàlla day dem safara ku weddi yàlla bu la yonent yàlla muhammad juróon sax safara nga jëm moo tax yonent bi xam loolu ba mu tàmbalee woote lan la wax yaa fatimatu bintu muhammadin salni min maali ma shi'ti fa inni la ughni anki min allahi shay fatima sama alal de maa ko moom laaj ma ma jox la mais boo jaamul yàlla mënuma laa musal yow fatima ixwaani ñaari aaya yooyu la ñuy jël ci suratu baqara aaya 38 ak aaya 39 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون yaqulu jalla wa ala buur nee na aadama ak iblis ak hawa ak seeni njaboot wala avant seeni njaboot ñoom ñëpp bañ ma moyee bañ ma tooñee qul naa wax naa ihbitu wàcc leen aadama keroog ba mu tooñee yàlla yàlla génne na ko biir aljanna iblis keroog ba mu tooñee yàlla yàlla génne na ko biir aljanna xawaa keroog mu tooñee yàlla yàlla génne na ko kon ku tooñeeti yàlla rek yàlla teg yaram sa kaw bu fekkee ñooñu la yàlla bind dugal leen aljanna ñu tooñ yàlla yàlla wàcce leen ah ma sama ak ñun yàlla amul kenn ku rëy ci moom ñépp dañoo tuuti ci yàlla amul ku rëy yàlla kenn rëyul ci moom ñépp a tuuti moo tax bu la santee lan moo lay dimbali def rek su la teree lu lay dimbali bàyyi soo tooñee lu lay dimbali jéggalu tuub dellu ci moom yi rek moo lay dimbali waaye am réy réylu wala man maay man yàgg naa fi maay diw wala maa ko sañ maa ko ñeme loolu amul ci yàlla moo tax aadama keroog ba mu tooñee yàlla yàlla mu ne qul naa wax naa ihbitu wàcc leen alxubut min al fawq ilal il asfal wàcc mooy jóge kaw ñëw suuf moo tax ñi naan aadama yàlla dugalu ko woon aljanna fii la woon ci benn jardin la yàlla defaroon ba mu naat dugal ko fa moom xawaa non dañuy wax rek yàlla tabaraka wa taala ci kaw la ca aljanna bi mu ñu dencal xuld foofu la dugaloon aadama ak xawa foofu la iblis nekkoon bañ ko tooñee mu ne leen ihbitu wàcc leen ay inzilu wàcc leen min aljanna génn leen acca génn leen sama aljanna lu tax parce que da ngeen maa tooñ dama leen a tere woon la ma leen tere woon ngeen def ko dama leen ne woon ne wala taqraba hazihi sajara bu leen jege garab gi nee na aljanna la joo xam ne fi aadama ak awa nekkoon aljanna ji ñu yàlla digle woon nekkul jardin comme ni ko waa mu'tazila di waxee firaq yu alku yooyu nga xam ne seen pas-pas dafa wuuteeg li yonent yàlla muhammad indi waa mu'tazila ñoom dañu ne benn jardin la woon fii ci kaw suuf waaye li wér mooy ci kaw asmaan la woon ci aljanna ji ñu yàlla dig al imam aboubacar jabir al jazair nee na waxu mu'tazila boobu jarul sax gestu ndax nekkul wax ju wér mu ne yàlla ne leen wàcc leen ci kaw suuf ilal ard wàcc leen jëm suuf lu ngeen fay uti mu ne li taishu fiiha ngeen dund fa fa ngeen di dund ci kaw suuf waaye ban dund dund noonoo aadama day noonu iblis iblis day noonu xawaa xawaa day noonu iblis ñoom ñett ñëpp ku nekk day noonu moroomam yàlla ne leen ihbitu wàcc leen minha jóge ci suuf acca ci biti génn leen yàlla moom soo ko tooñee sans droit la lay dàq sans droit gis nga liggéeykat bu ñu ko tooñee dañ koy fay ay droit am mais boo reppee ba tooñ sans droit lañ lay dàq iblis sans droit lañ ko dàq ndax dafa tooñ aadama moom jotul woon sax liggéey moo tax dañoo dañ ko lemal ay bagage ak yéen ko wàcc ndeysaan aadama bi mu tooñee yàlla dafa doon nëbbatu yàlla mu ne ko yaa aadama atafirru min nii aadama da nga may daw mu ne yàlla daw ma la de dama laa rus mënatuma jàkkaarloog yow moo tax borom xam-xam yi ne aadama makasa salaasa mi asana lam yarfa rasahu ila sama toog na ñetti téeméeri at xoolu kaw asamaan ndax jàpp ne su xoolee asamaan day jàkkaarloog yàlla te dafa tooñ yàlla allahu akbar xoola ñun ñuy tooñ yàlla di sol ay bodi di ngand ngandaloo nag di génne dënn naan nii nga dégg ñu naan jaajëfaay gaa yi baa ngi nii de mu naan nii bu dee bu dee ku jigéen la tooñ yàlla ba pare génne kool bi koll bi nag sol bodi di doxantu yenn saa yi sax mu ànd ak waaye ñu naan pourtant waa ji ko ëmbal la àndal ne Sénégal yàqu na ku la fi gën a ku la fi gën a mën a def lu bon moo la gën a mën a ngand ngandul ku la gën a mën a def lu bon de moom lañ gën a mën a publicité moom lañ gën a mën a génn ci télé yi moom la moo gën a siiw moom moo ëpp sax ay cadeau yuñ koy jox ndax moo gën a bon waaye boo baaxee Sénégal de boo baaxee bokkoo ku bon rek moo bokk Sénégal su ngeen gisee Sénégal ñi bon ñi rek ñoo siiw lim leen compte leen seen baaraam ngeen lim acca bismillah ne leen un ñu bon ñi rek ñoo siiw ñu baax ñi kenn du siiw ku baax du siiw Sénégal parce que su bokk suñu programme mooy baax bokku ci yàlla ne leen jamian yéen ñépp ci biti aadama hawa iblis ak seen njaboot yéen ñépp génn leen jamian fa qul nahbitu minha jamia génn leen wàcc leen jóge aljanna jëm leen suuf jamian yéen ñépp kenn bu mu des foofu ndeysaan yàlla dàq leen ñoom ñépp wàcc leen borom bi ne fa imma yatiyannakum li wóor tey mbir lii dëgg dana jóge ci man ñëw ci yéen fa imma fa innama la woon li wóor tey mbir tey tey dëgg yatiyannakum dina ñëw ci yéen min nii jóge ci man yàlla hudan sama njub ay in yajikum min rabbikum hudan dina jóge ci seen borom njub diine boo xam ne shara la sharia la boo xam ne dammanahu kitaabun wa bayyanahu rasulun benn téere la boo xam ne dafa ëmb dëgg ëmb njub benn yonent lay àndal yonent bi di ko leeral saa yi ñëwee ci yéen ku ci jàpp doo sànq doo réer fa imma yatiyannakum dana jóge ci man yàlla min nii la wax min nii jóge ci man hudan njub njub mi lan lay nekk yow yàlla mu ne shar'un ay loi ay atte ay santaane ay def leen ay bàyyi leen dammanahu kitaab ci benn téere lañ ko tënk wa bayyanahu rasul day ànd ak yonent bu koy leeral yàlla saa yu yónnee yonent jox ko téere saa yu wàccee téere wàcce waale ab yonent bu jàngale téere bi ñaata téere ngeen xam yu yàlla wàcce am na tawraat kan la wàccoon Moussa moo ko doon leeral am na injil ci kan la wàccoon Isa moo ko doon leeral am na zabuur ku ko doon leeral Daawud am na suhuf ku ko doon leeral Ibrahim am na Qur'an kan moo ko doon jàngale Muhammad mu ngi nii sunu kanam moo fi des mboolem yonent yi yàlla jox leen ay téere dañ doon leeral téere yi téere yooyu lan la ëmb pour doomu aadama yi xam fu ñuy teg seen tànk ñu xam lan la yàlla bëgg ci ñoom ñu def lan la leen yàlla tere ñu bàyyi loolu la téere yi ëmb hudan linnaas dañoo umbal nit ñi njub wal hidaaya wa saada ëmbal leen texe adduna ak alaaxira moo tax yàlla ne njub googu faman tabia hudaaya képp ku jop képp ku jàpp ci njub loolu nëpp ko fala yadillu wala yashqa du sànk du texee di ab aaya la ñun nag xam ngeen daal tey lu tax ñu sànk mooy njub googu yàlla indi njub gi lañ sa lañ laxas teg fële de côté ñun julliti tey fan lañu yàlla tabaraka wa taala defal sunu hidaaya fan la nekk ah loolu yàlla ne fa imma yaatiyannakum minni hudan ñun njub gii yàlla wax ne dina wàcc jóge ci man ñëw ci yéen ñun fan la ko yàlla def du ci quran ñun lan mooy sunu al ñun quran lan lañ ciy jëf lan lañ ciy liggéey fii luñ ciy jëfe yii may bëgg a lim moo tax sénégalais yi di jëfandikoo alquran lii yii may bëgg a lim ay ndombo ci ndigg ndombo takk ko ay xaatim def ci ndombo ci ndigg wala def ko ci mbagg yi wala def ko ndombay baat wala def ko saafara di ko naan wala balaa ñu koy jàng am ku dee wala ku tabax këram ba pare daane xaaral ma jàng fi wala ba ndax jinne yi fi nekkoon dem woo gaa yi ñu jàng alxuraan wala ku ñuy waaj a audité mu tiit ku ñuy waaj a audité mu tiit ne wàcceel leen ma kaamil wala ku jël kaamil teg ci ot kaw otoom nii pour mu aar oto bi wala mu teg ko ci kaw armoire bi ñun lii rek la ñuy doyee kaamil wala nit dee ñu dajaloo indi kaamil yi commencé ñu fàtte ne alquran yàlla waxul woon pour ku dee la pour ku dund la li tunzira man kaana hayyan li tunzira man kaana attention de aaya bi yéen ñim noté leen ko li tunzira man kaana mayitan bàyyi ba nit dee imagine leen nit dee mu ngi ni tëdd ñu ngi ci morgue bi di ko sangu gaa yi ñëw ci kaa ñëw gaa yi ñëw ci jàkka ji wa aqimu salata wa atu zaka joxe leen julli leen joxe leen azaka est-ce que ki dee mënati na ko walillahi ala nnaas hijjil bayt man istataa ilayhi sabila aji leen ki dee mën na ko ki dee nii mënati na aji ah bon léegi kon moom lu ñu koy jàngal lu mu koy doyee du pour moom pour ñun ñi dund la ndeysaan benn borom xam-xam dafa wax ne alxuraan démb kaana zinatun lil qulub al yawma zinatun lil xaflaat nee na démb alxuraan leer la woon pour xol yi tey ñun xam nga la la ñuy dee alxuraan bu ñuy conférence rek defar baas bi ba pare conférencier bi ñëw ñu ne avant muy commencé nañ bàyyi benn kii mu ñëw aoudu billahi min ashaytani rajim gay ni bismillahi rahmani rahim la rek ndeysaan ndeysaan wala bu koor jotee muñ demee xiyaamul layli rek ndeysaan gaa yi ñu neexal baat gaa yi jooy dem ñu ngi rek ñu ne jiw dem bu jooy nañ nañ ba sonn dem danañoo jooy ba sonn jooy nañ so démb bi jooy yi commencé damaa yeewu sax di jooy tey loolu la ñuy foyee quoi dañuy foyee alquran dañ koy foyee tey dañuy foyee alquran mais gis ngeen ñi foyewuloon quran ñi ko foyewuloon xool leen seen dund dañ leen gam-gamle rek dund saxaaba yi ak suñ dund ñoom ñu nga xam ne foyewuñoon alquran nga xam ne dañ ko defoon manhajan lil xayaa dundin alquran ci ñoom foo rouge la woon su diglee ñu dem su teree ñu taxaw benn borom xam-xam bu mag papaam da ko doon romb muy jàng alxuraan saay papaam yeewoo rek ne ko yaa ngi jàng alxuraan mu ne waaw papa ji dem ma juróom fukki at chaque jour papa ji da koy romb ne ko yaa ngi jàng alxuraan mu ne waaw benn jour mu ne mais ina kii papa ji romb ko ne ko yaa mu ne papa taxawal mu ne yow chaque jour juróom fukki at yaa ngi jàng alxuraan ma naan la waaw même question même réponse doo wax dara moom yow lu tax mu ne comme tey laaj nga ma ko nag dinaa la ko wax ma ne dama laa bëggoon wax iqra ka annahu un unzila ilayk booy jàng na nga jàng mel na ci yow lañ ko wàcce yow mi yow mi di ko jàng alquran bi bul ko jàng pour diw naan yaa ayyuha allazina amanu abu bakar umar yaa ayyuha allazina kafaru abu jahlin mu namrud yow léegi yow loo ci am inna allazina kafaru misla aba jahlin inna allazina amanu misla umar léegi yow loo ci am yaa yohannas ey yéen waa màkk ana waa sénégal iqra ka annahu unzila ilayk soo bëggee wax ak yàlla jàngal alquran soo bëggee yàlla wax ak yow jàngal alquran soo bëggee yàlla wax ak yow jàngal alquran soo bëggee wax ak yàlla jàngal alquran alquran mooy defar dund mbokk yi sans alquran aduna du baax ndax li baaxal aduna yàlla mu ngi ko def ci quran moo tax yàlla mu ne wa imma yatiyannakum fa imma yatiyannakum minni huda li wóor tey mbir mooy dëgg dana jóge ci man ñëw ci yéen njub fa man tabia hudaaya képp ku topp sama njub loolu loolu may wàcce képp ko topp axasa bi shar'i sharia boobu loi yooyu yoon yooyu njub googu may wàcce képp ku ko topp fala yuxaalifuhu wala yaxiidu anhu wuutewul ak moom mooy te ndikuwu ko da koo jël complètement loi yooyu yoon yooyu njub googu yàlla mu ne falaa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñooñu falaa xawfun alayhim dootuñu tiitati ci àdduna gis ngeen saxaaba yi amuñu woon tiitukaay d'accord ngeen saxaaba yi musuñu tiit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni na ay saxaaba ñuy dox ba caag ñu fekk benn gaynde gu tëdd benn saxaaba bi jox ba jëma ne ko gaynde gi jógal ci yoon bi ñun ay yonent yonent yàlla lañ gaynde gi daal dugg ci tool yi ñoom ñu continuer jógal ci yoon bi ñun ay yonent yonent yàlla lañ yonent yàlla bi moo ñu yónni gaynde gi puus ñu jàll xoolal xoolal amr ba mu ñëwee ci rustum koo xam ne dañ koo garder ba ay weñ ñemewuñ ko laal Rustum bu ko tiital indi garde yi indi génne armes yi génne lépp ba pare doog ko wax yegsil pour mu tiit tegal ko piniyaanu or pour bu ñëwee mu jaaxle mu ñëw war mbaam mi ñu lal ay tapis rouge tapis yi ñu lal président yi mu ñëw jaar ak mbaam bi ci tapis rouge bi ba pare xeej bi mu yor di ko xeexee moom lay bënn ci tapis yi ba yegsi ñu yaakaar na ci piliyaanu or bi lay toog mu toog ci suuf ci moket yi rusum ne ko yéen lu ngeen lu ngeen di ut ci at sunu dëkk mu ne ko ji inaa lu nuxrijakum min ibadati l ibad ila ibadati rabbil ibad ñun yàllaa nu yónni pour ñu ñëw génne jaamu yàlla yi ci jaamu gi ñuy jaamu jaam ñi jaamu borom jaam ñi yàllaa ñu yónni pour ñu génne nit ñi ci diine yu jeng yi ñu nekk yóbbu leen ci islam bu maandu yàllaa ñu yónni pour ñu génne nit ñi ci texee bi yóbbu leen ci texe mu ne ko bu ngeen ñu woowee ñu bañ nag mu daal di génne jaasi ji ne ko kii mooy nekk suñu diggante ak yéen jaasi bi la génn ci kaw ne ko kii mooy nekk suñu diggante ak yéen te ñetti fan laa leen lañ leen may ñetti fan ngeen xool su ngeen d'accordé ngeen tuub ñu delloo suñuy jaas suñuy mbar dem ñibbi su ngeen lànkee imma shahada wa imma nasr benn ngeen rey ñu ñu dugg aljanna wala ñu rey leen tuubloo leen ngeen nekk ay julit saaw yi amuñu woon tiitukaay xam nga lu tax ndax fi ñu jàppoon moo dëgër fi ñu jàppoon fi ñu wéeru woon moo dëgër fi ñu wéeru woon moo tax yàlla ne leen képp ku topp sama njub fala xawfun alayhim ñooñu duñu tiit fala xawfun alayhim duñu tiit amatuñu tiitaange tiitaange jeex na yàlla moo leen wax ne wala wala taxaafuhum wa xaafuuni bu leen ragal kenn ngeen ma ragal ragal ragal ragal yab yàlla la ragal yab yàlla la waxuma sax saxaaba yi ba ci ñu mujj ñi rek ñoom Malik ñoom Abu Hanifa ñoom Shafii ñoom Ahmad pas pas bi saxaaba yi yoroon gis nga bi ñu ko yoree moo tax gis nga ñoom ñëpp ku nekk jëflante la ak buur mais tiitu mais ñun bëri na ku dul dem fajar jàkka loo ragal agresseur waxuma la sax nga ragal ne agresseur eh, non yaani ya axi mm. waxuma sax agresseur waaye mbóot mbóot am na ñun ñoo xam ne ñemewuñ mbóot ñemewuñ si jinax bu ngeen jàngee usulu salaasa da ngay gis cheikh bi nu muy tënkee baat yooyu alxawf alxusu ah gis ngeen baat yooyu baat yu sew la mais yu garaaw la al istiaza al istiaana al istigaatha al xawf al raja baat yu tuuti la ci téere bi mais baat yooyu ñoo yor àdduna ñoo yor àllaaxira ñun nag dañ koy jàng ci kaw te te du ñu dem maanaa bi jullit warul ragal ku dul yàlla waroo tiit lu dul yàlla gis nga moo tax gaa yi njëkkee bu ñu leen ne yow dañ lay rey lu ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun am na benn buur ci Égypte président de la république bi day ñëw di ubbi si benn place ñu invité benn borom xam-xam na ñëw bokk ci ñi koy teeru borom xam-xam bi taxaw buur bi di ñëw di ñëw di ñëw ba jib ko rek mu ne ko ragalal yàlla ñëpp tiit ges ragalal yàlla yow yow ragalal yàlla président bi ne ko lu ma def mu ne ko place sàngam dañ fay naan sàngara te yow yaay njiitu réew mi waa ji ne ko mais loolu sama papa moo jiite woon réew mi te loolu fekkoon na ko fi wax ci dara mu ne ko da ngaa bëgg a bokk ci ñoo naan inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim la muhtadin sunuy ndey ak sunuy bàyyi li lañ doon def loolu la ñuy def loolu ci ñooñ nga bëgg a bokk mu daal di joxe ndigal ci saase nañ tëj place boobu buur bi ñibbi taalibe yi ñëw wër sëriñ bi naan ko tey yow tey tuuti nga rey sa bopp yow dañ da nga doon alku yow yow xanaa gisoo garde yi mu ne leen wallahi bi ma xoolee buur bi xool màggaayu yàlla dafa mel ni muus laa gis ka anni raaytu qit am na koo xam ne gaynde lañ ko booleel jàng ngeen histoire bi pour gaynde gi lekk ko bi ñu toogee 30 minutes ñu ubbi kaso bi ñu gis gaynde gi di ko mar toog ci wetam di ko mar buur bi ne génne leen ko ñu génne ko buur bi ne ko waayoo bi nga nekkee ci biir gaynde gi di la mar tiitoo mu ne non man sama problème moo doon ndax yuut yi set na ba ma mën a julli ndax yuut yi set na du sobe ba ma mën a julli man la moo doon sama problème yëpp jàng ngeen ko buñ ci téere yi ñu bind waaw man sama problème moo doon ndax yuuti gaynde set na ba ma mën a julli alxawf ragal rek yàlla kan moo yor bakkan kan moo yor bakkan yi waaw léegi kon looy ragal yàlla nee na li ma indi boo ci jàppee wala xawfun alayhim dootu leen tiit li ma indi ku ci jàpp dootoo tiit waa ji lay menacé yaa ngi moom yéen a bokk borom te moom yorul sa bakkan am na ñoo xam ne tey bu ñu moomoon ngelaw li yow doonoo yi wala bu ñu moomoon sa bët doo gis bu ñu moomoon tey bi bu la waaye benn waaye abonné woon courant nga merloo ko daal la yow day dem rek dagg kontóor bi tey kenn bu yoroon sa bakkan nga merloo ko wala ci pot lampe bi day yéeg ni la yow nga daan ko dimbali ma muy dagg ba ngay xor-xor yi di dee ndax daf lay won ne man yow ma yàlla nag gis nga yooyu joxu ko doomu aadama moo ko yor ci loxoom lu la nit mere mere mere mënu laa tere nooyi mënu laa tere xool sa fan bi ci loxo yàlla la nekk moo tax yàlla mu ne ñi nga xam ne dañoo jàpp ci li ma indi fala xawfun alayhim ñooñu tiitaange du leen ñeel mukk mukk mukk du nekk ci ñoom waaye wala hum déet ñoom yahzanuun ñuy jàq ci mbir yi nga xam ne moo leen di raw ci àdduna mbiri àdduna yi di jàq déedéet lu jamono bi métti métti métti lu crise crise am dañuy gëm ne wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizqaha xoola yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax law annakum tawakkaltum ala allahi xaqu tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tay est ce que picc yi mës na ngeen dégg ñuy grève dama leen di laaj picc yi mës ngeen dégg ñuy grève naan wuu tool yi amul dugub foog ñu grève ndax baykat yi di ji est ce que mës ngeen gis gaynde yi di grève te duñu lekk gaynde lu muy lekk yàpp yàpp moom du lekk sax ñax te bis bu nekk mu añ reer yenn saa yi sax mu njogonal te yàpp lay lekk yàpp te du lekk yàpp bu fanaan bees rek te xam ngeen ne bu gaynde lekkul woon doo gis gaynde ci àll bi ñu ne la am na ñaar juróom-ñaar fukki at gaynde màgget ba ba ba kawar gi di direeku te yàpp rek lay lekk li lekk ci li lekk yàpp ci àll ñaata la te bu ci xëy di nga lekk yonent yàlla Suleymaan dane woon yàlla bàyyi ma dundal àdduna bi weer yàlla mu ne mënoo ko mu ne yàlla bàyyi ma dundal àdduna bi semaine yàlla mu ne mënoo ko mu ne bàyyi ma dundal leen ñetti fan yàlla mu ne mënoo ko mu ne bàyyi ma dundal leen benn fan yàlla mu ne Souleymane mënoo ko waaye jéemal Souleymane xam ngeen ne moo gouverné woon jinne yeeg nit yeeg njanaaw yi moo tax suñu président yi duñ dara ñoom lu tuuti lañ gouverné Souleymane àdduna la gouverné woon àdduna nit yi jinne yi ak njanaaw yi naaw lépp Souleymane daal di yabal jinne yi ne leen 4 kilomètres carré nañ ko togg ay lekk te xam ngeen cinu jinne yi ak suñuy cin du benn jàng ngeen ci alquran yàlla di wax cinu jinne yi nu nu toll 4 kilomètres carré ñu def ko ay table ay cin ñu togg togg yi ba lekk yi ñor ñu teg palaat yi génne kuddu yi teg ndoxum raxasu benn mbindeef ci mbindeef yàlla yi moo génn ci géej gi lekk cin yeeg taabal yeeg kuddu yeeg lépp ba mu jeex ne ko Souleymane ragal yàlla ci man benn nga ma jox lii nga ma jox yàlla ñett la ma daan jox te ñeneen ñi lekkuñ benn mbindeef la moom lépp la lekk ba pare ne ko ragalal yàlla ci man suura guma de des na ñaar yu toll nii may doog a suur yenn yenn saa yi ngeen seetaan documentaire am na mbindeef yu nekk biir géej kooku soo ko gisee lu muy lekk kooku kilo doy ko te mi ngi lekk jël la jëlal waaw exactement te mi ngi lekk te liggéeyul fenn ñun nag xam nga lu tax ñun mënuñu dund dund bu neex parce que ñun dañu ne yàlla bàyyi ñoog suñu bopp ñun ñu ñefe damay ñefe sama life pour dund yàlla dana woon jaamu leen ma ma jox leen lu ngeen dundee ñun ñu ne yàlla bàyyi duñ la jaamu te danañ dund xool leen li jaamu yàlla yëpp liggéeyuñ te ñu ngi dund même xar bi nga takk sa kër day xëy génn nga génne ko mu ne la mbee nga defa ne mbee la dana ne merde ana ngooñ bi nga dem daw indi ngooñ bi teg mu ne la merde ana ndox mi eh, way solo nga rek waaw indi sama ndox mi nga dem indi ndox mi jox ko mu naan guddi jot mu ne la merde dama bëgg a tëddi yóbbu ma et puis ba fii dafa tilim doo ko bale et puis man gëj naa sangu sang ma nga dem jëndu ama sangu ba mu set yow yaay def lépp yaay jaam bi yow nga yaakaar ne sama xaar bi xaar bi dara nga dem ne mbee la yor dana la merde ana sama lekk soof nga nekk fii di wër rek lekk bi te mbaambaal rek léeg-léeg nga jox ko ngooñ waaw sama lekk waayow nga dem jënd mburu ñëw indi teg mburu bu wow indi teg dem jënd ràkkal ah. dem jënd ràkkal dem jënd ripaas indi teg gis nga moom dafa wàkkirlu ci yàlla Allahu akbar.
wala yow mi wàkkirlul yow boo doon dee fi kenn du la jox dara demal ci bios doore bi nga daw na waa ji na la jox kilo la sax xool eh eh dara eh eh dégage ici toi nga bougé est ce que yow wàkkirluwoo ci yàlla waaw wàkkirloo ci yàlla yàlla jox la nga lekk wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu wa man yatawakkal ala allah yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haysu la yahtasib yàlla nee na boo wàkkirloo ci man man yàlla ma doy la waxuma la ma doy la mais ma jox la foo ko foogewul woon billaahi wallahi taala waaye nag doomu aadama yi dañu ne yàlla bàyyi ñëg suñu bopp xoolal lépp yàllaa leen dundal ba mu des nit xoolal fel yi sax fel fel est-ce que am na bët fel lu muy dunde ceeb mburu fel lu muy dunde Direct ni, deret te day naan ba suur yoo lu muy dunde ñax direct.
deret day lekk ba suur te mënoo ko fee jële jële leen fi yooyu da ngeen dem entraînement ba sonn dem géej ñëwaat yoo bi ñëw wër la woon ne la fan moo gën a dëgër tey entraînement bi fan moo gën a duuf ki naan ba sonn dem yoonam nga pomp taal garab yooyu yoo ne la dara bul sonn dañuy naan yàlla moo nu yónni allahu akbar dañuy lekk ba suur mënu loon tus mu leen fexe ba duñ fi nekk ñu nag yéen ñoo fi bokk nekk mënu loon ñu fee jële bu yeboo ngeen pompe adduna bi yëpp ñun dañuy dund ok mu ko xoolal doomu aadama bi façon pompe bu nekk créé nañ ko luñ mënal yooyu Direct.
tus gën leen mënalul fi lay nekk ko yéen dañuy dund yàlla moo leen bind ay jaamu yàlla lañ Nga jëlee garab mu bu ndaay.
ngoog ñëpp yàllaa leen dundal ba mu des doomu aadama xam nga lu tax parce que doomu aadama dañ ne mooy dundal boppam yàlla bàyyi koog boppam moo tax mu sonn mbindeef yëpp doomu aadama moo gën a sonn xoolal Sénégal 24 heures sur 24 nit ñi dañuy daw ci mbedd yi bala ngay xam nit ñi ñoo gëm dund fajar jot nga gis nit ñi ni ñuy génn ci kër yi dem leen Dakar 11 heures te ngay gis mbedd yi bloqué circulation bi tàngaay bi ku nekk soo demee Petersen moom doo dégg mel na ay yow ba guddi naxuma leen de Wallaahi.
ñoo ñëpp lu ñuy ut ku nekk loo dundee koo wax mu ne la "Su- sama kër il faut ma am lu ma fa yóbbu sama kër gis nga parce que lu tax wàkkiirlu woon ci yàlla
Allahu akbar.
fa man tabaa hudaaya fala xawfun alayhim Wala hum yahzanun.
wala hum yahzanun yàlla mu ne wallazina kafaru gis ngeen ñi weddi loolu nag ñi weddi ne suñu toppee sama njub dañuy dund yéeféer yi jahadu shar allah ñi weddi sharia yàlla wa kazzabu rasulahu ñu weddi yonent bi wa kazzabu bi ayatina walladina gaa yi nga xam ne kafaru dañoo weddi wa kazzabu ñu fenloo bi ayatina sunu aaya yi téere yi ma wàcce ñu weddi ko sànni ko fële seen loo samay yonent daan ne du dëgg programme bi dara baaxu ci dem indi ji programme u Jean ak Paul ak Fried ak Lénine Socrate ak Jules Ferry ak
Google.
xam ngeen gaa yëpp ngeen dem indi programme ñooñu ngeen yaakaar dina baax du baax de mu ngi nii mu ngi nii baaxul de ba ba léegi yéen a ngi ci programme Jules Ferry yéen a ngi ci programme Lénine yéen a ngi ci pro- programme Karl Marx yéen a ngi ci programme lan moo baax dara baaxul te dara du baax dara du baax fekk dunduñu programme yàlla bi yàlla rek bu nit ñi muusoon nag jamono bi comme essayé nañ système yëpp demul ñee nañ essayé bu Muhammad bi bu nit ñi muusoon essayé nañ capitalisme demul libéralisme ngi nii dañuy yóbbu sukuraat ñëpp ñu ngi nii ñu ngi ci armée yi taxaw di xaar ah baaxul nañ essayé bu Muhammad bi boog ñu xool mais Sénégal amuñu fulla suba benn waaye day taxawaat fii naxaat ñu bu ngeen ma falee loolu ñooñu di tooñaate di wax ñooñu nekk xabaar jalgati dinaa leen defal ay micro yoo xam ne da ngeen di ŋaang rek wax bi di dem xam nga Abdoulaye Wade loolu la waxoon étudiants yi dinaa leen defal ay robinet maafe moo waxoon de.
ñoom ñoom ngeen dem wata ji robinet caakiri ana robinet yi da ngeen dof robinet caakiri fan la am amu sax États-Unis ngeen nag yéen laa leen fa robinet caakiri robinet caakiri ku ko bëgg aljanna ngay dem ah waaw foofu moom ay robinet caakiri allahu akbar ah foofu moo am nahrun min asal nahrun min laban nahrun min xamr nahrun min ma ba pare yàlla mu ne musaffan
لا يتغير allahu akbar يتغير ndeysaan nahr nahr nahru sénégal ñaata nit ñoo ko bokk dexu sénégal ñaata nit ñoo ko bokk ah ñaata réew ah non loolu day métti dexu sénégal ñaata nit ñoo ko bokk 12 millions ñoo ciy naan su ngeen demee aljana ngeen gis benn waaye bu am dex bu tool noonu moom kenn moo ko moom moom kenn yenn saa yi nga gis ku ci am juróom-ñaar waaw kenn ku am juróom-ñaari dex bu sàngara bu soow bu lem bu ndox allahu akbar yàlla moo mën a maye xamul tax kooku am loolu parce que yàlla ngand la day wane ne man dama ngand du ma def lu ndaw ku ku ndaw mooy def lu tuuti bu koo ngandal mais ku ngand bon am ñoo xam tey boo leen gisoon fii ñu yéeg avion doo waaru wala mais sama zaar cumbur yi bu ñu yéegee fi avion rek rek bu ñu ñëwee dañuy bëgg ñëpp gis leen parce que ñun dañoo ndaw mu ngoog yàlla tabaraka wa taala lim nu wax mooy dëgg suñ ko gëmee rek nekk ci dëgg wallazina gaa ñi nga xam ne ismu mawsul kafaru dañoo weddi sama alquran weddi sama yonent wa kazabu ñu fenloo bi ayatina sama aaya yi man yàlla li ma wax ñu fenloo ko ulaayika ñii ashaabu naar ñooy waa safara lu tax yàlla mu ne ku weddi téeréem weddi yonent yi safara nga jëm ñun Sénégal ñu gis ay nit weddi yàlla weddi yonent weddi alquran ñu ne ñooñu dañuy dugg àjjana weddi muuraay.
ayen lii li du dëgg li wax yàlla la de ah yéen da ngeen di lire benn article fii Sud Quotidien wala l'observateur wala rek ñu ni i article bi pourtant ministre sàngam moo ko signé ñëpp xam ne dëgg la yàlla wax fii kenn gëmu ko te yàlla li mu leen wax yëpp ngeen ciy teg bët yàlla mu ne ku ma jàpp ci yéen du rëcc ñi yàlla di jàpp yëpp yéen a ngi gis kenn rëcc ci bu ñu leen yóbbee gas ba mu xóor suul leen dañuy ñëwaat ñi ñuy yóbbu ñëpp di ñëwaat gisu leen ku ñëwaat ne yii affaire yi moo bëri rek booy ma ma ma porox ndollu daw ñëw waaw yii yii foofu garaaw na gis ngeen loolu mën ngeen ko gis ka mën ngeen ko jóge foofu rëcc daal daw ñëw ne chut dama rëcc yenn saa yi kaso lu mu garaaw garaaw nga gis ñu rëcc wala wallaahi.
yenn saa yi coup d'état même problème Côte d'Ivoire bi am nañu rëcc waaw ci famille yoo xam ne kenn jàpp leen mais dama ne ñi ñi ngeen commencé dégg depuis aadama ba fii nu nekk ñu leen di yóbbu alaxira gis ngeen ci kenn ku rëcc
waaw
ndeysaan gars yi dañoo gis dof bi ñu ne dof bi kaay maye dof bi kaay maye ñu mu ne man aasha maata wa man maata faat maa li ara nnaas yazhabun summa la yaudun ahum taraku fanaamu am tafaddalu lbaqaa fa baqaw mu ne ku dund dee ku dee ñu fàtte la mu ne nit ñaa ngi dem rek te ku dem doo delsi waa gars yi foofu dafa neex ñu téye leen wala ñoom dañoo bëgg a ñëw ñu ne leen du ngeen ñëw question la de gars yi dañoo dem foofu neex ñu toog ñu toog wala dañoo dem bëgg a ñëw ñu ne leen hé y a pas de retour là-bas ah ndeysaan kenn du rëcc yàlla wax nañu ko de du ngeen mu rëcc ci suuf du ngeen mu rëcc ci asamaan comme duñu rëcc yàlla bu yeewoo ñu farag yàlla mbokk yi wa ma antum bi mu'jizin fil ard wala fi sama kenn du rëcc waaw يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا daa tanfusu إلا بسلطان يعلم من هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد fakiiru kenn du rëcc dañ leen ragal yàlla dañ leen ragal yàlla ñu bañ a topp yëfër yi ñu bañ a topp caaxaan kër yi ñu ñuy nax ñi nga xam ne perte nañ seen àdduna àllaaxira moo ci des te dañuy perte yàlla nee na képp ku ma weddi ulaayika ñooñu ashaabu naar ñooy waa safara Malik ibnu Dinar nee na bu ma amoon ñu ma dimbali dama leen di tasaare ci mbedd yi ñu jaar ci mbedd yi fajar naan annaar annaar annaar ba fajar jot yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na safara bi ngeen di gis nii dañ ko raxas juróom ñaari yoon ci biir géej ndax mu mën a dal aadama bi mu wàccee ci kaw suuf dafa xiif dafa am lu ko dal lu mu sentir mu ne jibril man dama am lu ma sentir jibril mu ne ko loolu xiif la mu ne lu koy dindi mu ne ko ñaari yëkk yu xonk cur ak deret jox ko mu ne mu bu ko lekk yëf yi sëcc mu ne lii mënu ma ko lekk lii nu róowul ak lekk aljanna mu ne ko ñorul mu ne nag may def moom ñor ah fii de jahannama fi nekk xanaa ñu tàgg borom bi mu daggal la ci ñu dagg ci lu toll ne bekk sukkër sànni ko ci géej yi géej yi di tasaaroo juróom ñaari yoon ba mu tane nii ñu ne aadama jël ko aadama gis nga bi mu ko laalee da koo lakk mu delloo loxoom mu ne waaw yow jibril lii lakku la te man lakk na ma mu ne ko yow da ngaa moy yàlla man duma moy yàlla bi nga moyee yàlla moo tax mu lakk la ah safara du day lakke lu tax bi ñu ci dugalee ibrahima lakkul kon ku moy yàlla lay lakk yéen jàngeen ci histoire Sénégal am na ñoo xam ne dañ leen doon tuumaal sàcc wala njaaloo am na ñoo xam ne safara lañ doon tàng dañuy tàngal ba mu tàng ne la téyel nga téye du la def dara nag gis dégg naa ay nit yu ñu ma ko nettali bu njëkk ba boo doon waat bu ñu defoon dara ci pénc mi kenn xamul kañ la ñu ne dañuy waat dañuy indi safara ñu ne ñoo leen ngeen waat allahu akbar nga gis nit ñi ñëw di ko téye mos naa dégg ci Abdou Aziz si Dabakh mu ne am na benn naar boo xam ne dañ ko tuumaaloon lenn ñu teg safara boyal mu jékki-jékki rek tëb na ci cëpp ne bu dee man la naa lakk mu génnaat dara dal
waaw kon safara kan lay lakk ku may ku mooy yàlla ku mooy yàlla safara lakk la borom bi tabaraka wa taala mu ne waa safara hum ñoom fiiha ci biir safara xaaliduuna dañ fay sax kon am na ñoo xam ne ci biir safara du ñu génn xaaliduuna fiiha abadan ma daamati samawaatu wal ard mbokk yi incha allah fii la ñuy yem ba samedi bii di ñëw yal na yàlla def ñu dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu